élection législative ñëw j'avais trente mille parrains matalu ma am kenn ku nekk est-ce que ànd ak Pape Djibril Fall ñu dem ànd je pense que soo xam ngeen ko parce que bu ñu ñëwee di ànd def ne am na xaalis am na lépp ah, bu demee bési bi nag amul parrainage amul dara man maa fay caution bi indi les trente mille parrains ba pare bàyyi ko mu jiitu parce que moom naa fay sama caution ne maay jiite. yow yaa fay caution. maa fay sama quinze millions caution. législative législative bi. ñu demee sama récépissé parti pourtant xëccuwuma première euh, tête kii bi euh, tête de liste pourtant man su ma fay indi sama parti su ma neexee ne maa jiite. léegi fan ngeen mujjee. benn député doon am mooy moom. après jeex na ngeen tasaaroo non parce que nit koo xam ne xaw ma ko woon nit boo xam ne amoon naa estime si moom mu ko doon bu euh, ko doon ndax dégg man mosuma ko gis parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur mais si benn mois bu nga koy gis xam naa nit boo xam ne lépp lu wax si gémmiñam du dëgg. c'est pire que les politiciens des métiers moo tax danoo pare ma génn bàyyi dama sa waaw nekk nag Sénégal nu mu si yàlla ma yàlla mosoo si ci mel nii mu ngi leen gisati sama àdduna. parce que c'est une collaboration mais baaxul woon ne xam naa c'est pas nit bu am éthique wala wax si. te boobu législative bi ay parrains. 30 000 parrains. yaa cotisé 30 000 parrains. fay sama caution saisi sama bureau na nga ko defee sama récipient parti nañ demee voilà donc élection législative tey matal naa sama caution matal naa sama par présidentiel. waaw présidentiel laa bëgg wax. sa pare sa parrainage mat na. mat na sama caution fay naa ko li ñu mooy déposer caisse de dépôt et consignation. Ah, mais déposer go. kii déposer au niveau du conseil constitutionnel. Ah, d'accord. non fay nañ on a notre quittance waaw waaw waaw. fay kon yow kon yow kon yow. yàgg na d'accord suñu parrainage rangé nañ ko teg jot naa sama certificat de nationalité <coughs> casier judiciaire lépp pare na. lépp pare lu ci des mooy xaar lundi wala mardi wala mercredi. dem déposer CDC après xaar le tirage de 28 ñu xool est-ce que du jàll.